ñu avancer euh, monsieur le ministre euh, quels sont les enjeux selon vous naka ngeen aborder ces ces élections législatives la lan moo tax jàmm ak njëriñ war a am une majorité à l'Assemblée lan la. waaw xam nga comme wax commencé naa ko junj naa ko sànq ci waxtaan bi euh, Sénégal dafa di démocratie bu nga xam ne day yokk ak bu nekk nee naa depuis deux mille vingt deux li ñu gis. mooy que dañoo am mandarga yi nga xam ne mooy mandarga démographie yëpp cela veut dire que dañuy équilibrer assemblée nationale représentativité assemblée nationale day am euh, day refléter un peu opinion yi am ci biir. Mm-hmm. et opinion yi day am opinion bu opinion yi ñuy wax opinion yi nga xam ne day am ay soubassement culturel am ay soubassement économique am ay soubassement euh, sociaux yooyu yëpp dafa war a tex de telle sorte que dañuy am benn assemblée bu équilibré commencé nañ ko am ci deux mille vingt deux bien que. bien que li ko indi ak ni mu mel bu fekkee résultat yi am nañu ñaari tendance euh, ñaari équilibre gis nañ ne d'ailleurs à la fin dafa dafa descend dafa dafa xaw a équilibré au départ opposition bi ak majorité bi euh, dañoo xawoon a yem mm-hmm. euh, bu demee ba ci biir opposition républicaine bi ak pouvoir bi nga xam ne c'est un républicain ñoom gën a dajalewaat même bu opposition bi dem fekk kii bi parce que c'est des défenses républicaines loolu am na jàngat jàngat bi muy wone mooy am na erreur de part et d'autre am na erreur ci pouvoir bi nga xam ne pouvoir bi fi nekkoon amoon nañu tendance su xeex ak opposition républicaine euh, soit ñu indi la ci biir parti bi euh, da indi la soit ñu isolé la mm. loolu dem na ba jur nga xam ne dafa jox place ak beneen opposition bu dul opposition républicaine moo jur li ñu taxaw li ñu am fii yëpp tey loolu moo ko loolu moo ko jur. maintenant donc loolu responsabilité pouvoir bi la maintenant responsabilité ñi nga xam ne duñu opposition républicaine ñi nga xam ne gis nañu ne euh, ñoom seen démarche lay muy dox la da ngay lay muy dox. comme ni ñuy wax ne <laughs> ci ñoom dañuy lay muy dox gis nañ ko ba léegi depuis opposition ba léegi loolu moo tax ñoom lu leen neex ñu wax parce que dañuy lay xam nga lay moom kuy lay moom da ngay lay rek lu la ci génne mbaa yi ni nga réglé benn situation euh, mais situation boobu boo ci génnee nga dem moo tax dangay dem ba ci yàgg sax nga fàtte ne layoon nga le contraire ci li nga def parce que moo tax gis nañu vaar yi nu mu pompe parce que bu fekkee ne quelque démarche bu réfléchi la nga amay point de vue duñ la vaar lu bari parce que même bu fekkee ne yow nit ñi d'accord ak li ñu wax yow yaa ngi si ligne mais bu fekkee dangay lay lay rek mooy mooy situation bi jot na naa la xool lan moom ma ciy génnee donc ñooñu tamit am na nañu responsabilité parce que déstabiliser nañu lu bëri. Mhm. suñu réew mi ce qui fait que à des moments bien déterminés. jël nañu nguur gi mais att nañu ko mënuñu si def dara. maintenant bu ma dellu si sa si sa si sa question bi. Euh, wax naa fi cinq institution dafa am présidence de la république institution la. élection assemblée nationale mooy deuxième institution. te rôlam ci ci république ak ci système développement mooy contrôler mooy contrôler l' action gouvernementale ba représenter le peuple xool lan mooy intérêt peuple bi et fexe avancer loo aussi démocratie parce que ñëpp a fay teet gouvernement ñu ànd ak majorité bi rek ñoo fay nekk ñu euh, ànd ak président dans un régime présidentiel mais assemblée ñëpp a fay nekk hmm. bu amee équilibre day tax que nit ñi di pousser gouvernement bi di tenir compte ci intérêt ñëpp intérêt Sénégal yëpp hmm. ce qui fait que ñun suñu présence à l'Assemblée nationale ci ci loolu lañ ko lal. très bien te lu tax ñu lal ko ci loolu mooy que tey gis nañ ni Sénégal loolu tamit politique la ñun ci wujj wujj gi lañ nekk gis nañ ne ñi fi nekk attanuñu réew mi. mënuñu ko attanuñ ko xamuñu ko taxawuñu ci du seen en tout cas taxawuñu gérer réew mi comme ni ñu gérer Sénégal ba mu egg fi ñu tamit. mun nañ ci dellu si ah, débat yee. monsieur le monsieur monsieur le ministre boo taxawee nga ni àttanoon réew mi ci lan nga ko teg. parce que yéen ni ngeen yore woon réew mi. ñu bari jàpp nañ ni loolu baaxul moo tax ñu jëlee leen fi deux mille deux mille vingt quatre. Hmm. ci lan nga teg ni ñoom attanuñu réew mi. waaw xam nga. xam nga au bout de mois ban baromètre. waaw de six mois. gis nañ ne plus six mois ah. c'est c'est on est à huit léegi nañ dem huit mois. wax ban baromètre nga jàpp ne. waaw waaw waaw. engagé ay réformes bàyyi ko mu tontu ma tontu la. ayca xam nga ñun. ni ñu yoree réew mi Sénégalais yi bëgg nañu lu bëggoon nañu mu gën a bar. Hmm. tamit am na yenn bilan yi nga xam ne baax na mais loolu du ma ci sori. Hmm. mais am na leen lu nga xam ne ñun ñi gënoon nañu ko baar mais am na tamit lenn lu nga xam ne ñun ñu ngi ko doon def te ñu ñi gis nañ ne. Hmm. liggéey bu jafe la woon. xam nga oh. ñu ñu gën a xeex. mooy étudiants yi man ministre de l'enseignement supérieur laa woon. bourse yi tey bourse gouvernement bi ñun bi ñu doon fay bourse gouvernement ñun bi ñu doon fay bourse yi sans intérêt. Mhm. parce que étudiants yi ànduñu ak ñun xam nga ñaata la woon. Mhm. quatre-vingts milliards par an. Mhm. ñoom bañ ñëwee mënuñu ko attanuñu ko gis nga loolu xol la ak option politique la. est-ce que du état en ruine. non non déedéet déedéet option la option la dañoo option sociale ñun dañoo option li ñuy am dañ koy partagé wàññi ceeb bi ak njëg yi ñun. dañoo jëloon option que ne yi du yokk bi ñu bàyyee ñun bi ñu bi ñu daanelee ñoom avant ñuy ñëw njëg yi dem na ba cinq cent jóge trois cent cinquante dem ba cinq cent ñu ñëw ne wàcce waat nañ ko eggaat na cinq cent waaw mais non non déglu déglu rek ñun trois cent cinquante lañ ko bàyyi woon ñoom egg nañu cinq cent du yow yaa ma ne lu tax ma ne la mënuñu carburant ñun dañ ko wàññi woon ñoom yokk nañu subvention électricité d'ailleurs ma profité ci ci oyofal bi. oui xam nga ñoom oyofal bi nee nañ dañuy dañuy remettre norme normes. Mhm. Euh, les compteurs. mais ñun li ñuy revenir et kooku defe naa il faut que ñun ñu taxaw ci waa euh, ñun ñi ngaay ñu ngi tuumal Sénélec. Mhm. que ne boo revenir aux normes. sa consommation boo jëndee cinq mille francs dinañ la ne temps ngay am li nga doon am nga doon am. mais ci consommation bi li nga doon consommer ci benn bis deux fois ngay consommer et loolu ñun vérifier nañ ko defe nañ ci ce qui mais comme waa Sénélec la ak affaire boobu ñu ne leen ñoom nañ ñëw expliquer loolu vérifier parce que ñun dañoo jàpp ne hmm. injonction yi leen partenaire au développement yi jox nañu dellu ci subvention yi hmm. ñun bañ nañ ko fukki at ak ñaar hmm. ñoom dañ koo nangu ci juróom juróom-ñaari weer d'accord réew mi tey fi ñu toll nii lu bëri lu gën a bëri bis bu jot ñu wax tuumaal mais gisugoo fenn fu ñu liggéey projet yi ñu fi inauguré woon mooy bi ñoom bi ñuy dootu ñëw ñoom bi dootu ñëw dañ doon inauguré inauguré nañu BRT inauguré nañu yeneen ak yeneen hmm. gis nañ ne tey yooyu ñu doon attaqué ñoom loolu la ñu inauguré ba ñu inauguré suñuy projet ba léegi inauguré wuñu dara gis nañu dakaar Arena bi ñu doon xa xase ak dem. ñoo fa la ñuy demee di dafa def seen meeting du ñun ñun lu ñu ñemewul mosul ñemee def. ñun mosuñu ko ñemee def. ñoom fa la ñuy fa la ñuy dem ñun li ñu doon defar muy baax ñu ne baaxul ñoom ci la ñuy langaamu man gisaguma ñoom. li ñu defagum. li ñu li ñu def waaw man gis naa ne. boo demee ci sunu ministère yi. man ministère ci juróom-ñetti weer nag. teg ci fondement bu ci kaw sax non non waaw kon léegi dangay ngay d' accord ne ah, ñoom. ci juróom-ñetti weer déglu ci tabax fondement ba yëkkati kër. waaw léegi kon déglu rek. waaw ayca. déglu rek. Ah. man d' accord naa mun naa leen may loolu mais yow waxuñu woon dañoo ne amuñu projet non xam nga euh, euh, sëñ Saliou. li ma la bëgg a wax. Mhm. ñoom dañoo ñëw ne am nañu projet ñu ñëw ñu gis ne amuñu projet. ah non non non lancé nañ ko nag les références. non non amuñu woon projet laa la wax. mais comme yéen rek bi ngeen di ñëw yoonu yokkute après ngeen wuti. plan Sénégal non ñun programme la ñu dañuy def programme ñoom ñu ñëwee dañoo non non du loolu du loolu. mais supposons que ñoom ñu am projet mais gisu